Euh, foo ñuy xàllalaat fu ma leen di xàllalaat euh, ndénkaane sëy sëy waaw ah yaa ngi dugg fu doy waar nag waaw ndénkaane sëy xam li muy yëngu bari na lool waaw <laughs> ndénkaane sëy uh-huh. li day buñ ko defee moom hmm. yëngu mën naa bañ am ah kon li may way nii bii nii maanaam kii sëy nga yeb ak ki koy yor ak ki koy yor bismillah borom soxna si ak boroom kër gi alhamdulilah bismillahi rahmaani rahim mu tas bi laa jëlati way di dénk képp ku nar sëy soxna si déglu ma kon tey nga xam ne dëgg du ay nar mu tas bi laa jëlati way di dénk képp ku nar sëy soxna si déglu ma kon tey nga xam ne dëgg du ay nar na seey si nekk sa pas-pas xoolal ci mag ñi ko doon fas fexeel sa mbaar mi la buum rës bu noon yi ree la ci gi kër ginnaaw ba yaa ngi ci biir sëy bu lenn tax ba nga xëy fay ne démb wuute na ak tey póotit bu koy faje aw mar yow luy metit nanga koy muñ liggéeyu ndey dafa doy añ ci doom ne wax ji luy dañ te sëy du mel ne ki suukar sa sëñ bi nag di ko déggal te rikk nag ma ko fonkal xolam bi bul di ko tàngal sang la ëpp na aw far bum xam sa ful la te ñàkkal sa jom ci moom bu ko ñaawal la yàlla sant la toppal tereem yi moytu ko day lor sa wax ji nag di ko néewal sa coono it bu ko feeñal sa tànk nag di ko gàttal te xam ne àdduna day wor sëriñ bi ak ñi mu bokkal ndeyam ja doon kama jiital tofal ca baay ba mu àndal fexeel ba kenn ci bu mer ndeyam ja nag di ko neexal te baay ba nag di ko raamal sa añ ba nag di ko teelal na loolu nekk sa tiitar bul gànt mukk ci loo man dawal ci kem li nga àttan boo ko defee danga gis kon njëriñ ci doom yi nga fiy jur maam jaara sët la ca naaweel tànkam ya nag ma ko toppal ku mel ne bàmba di amtil waaye nga am ku nu jox cër saa dénk bi ma la jébbal jëfal te bul doxe tàyyeel te jëf ji nag di ko sellal ma jàll nag ci boroom kër boroom kër ndegam labat nga ba xëy fas dëkkool dëkkal ko te bul xas jigéen la manqué ne aw des yërëm ko bul di ko caw yar bu mu xam sa nay na nga koy jox laajam yi ngir dafa war sax te boo amul na nga koy wax loo xam ne mën na ko téeméer li tax ñu muur ki la xoolal ci guddi jox la ko seetal ca mag ñu baax ña ko jiital andi la sàmm ca bii cër sa soxna si bu ci yaatal ku man di doon ko ci bokkul follil sa nopp yi tey fal sa bët te bul faja am mer bul di sikkal la mu toggal la doonte sax dafa néewal xorom sa nang ko ko jéggal te xam ne waañ wi la daatar cuuraay li moo la ko tàmmal wéetaay wi moo la ko teggil saa waa ji kon nga la jàppal soxna si ndem danga nga dis gor bul jànni daa bëri kersa ci biiru nit bu ko forcé bul saaga ndax dafa daasi yeddal ci néeg ba ti bu mbir ne ci gis na nga koy muñ te xam ne faar la gu càmmoñ di jub nga la bul dañ di def ci moom la la ciy war jàppante leen bañ a saaraan ne néegu sëy de du caaxaan yowmal qiyaamate xam ngeen ku nekk sa téere ba ngay yor maa ngi taxaw lu di gàttal saa way wi ngir bañ a yaatal ku dégg li na ma ñaanal fan wu gudd ak mucc ak wér fii haasi la utammim xasidati wa ukallim yaa rabbi salli wa sallim ci ahmado ñi ko daa dar macha <laughs> ah, yóbbal bi am na solo ci wàllum kii sëy waaw ak kii denc kii denc waaw mu mel ni dénk nga daal waa ji uh-huh. ku néew doole lañ la jox uh-huh. waaye ku bari kerse lañ la jox uh-huh. waaye ku dëng ndax ci faar lañ ko jëlee nga ko jox ba pare jox waa ji ay responsabilité yoo xam ne moom it da ko war a amee moom mi yor mhm. maanaam bañ di nay mhm. ak yu ni mel mhm. waaye daf mel ni daf mel damaa dégg ñu naan góor nayul xol baa seddul loolu moom noo ko déggee yow euh, góor nayul baa seddul <laughs> góor nay na kay <laughs> ah, góor yow waaw góor nay na xam nga <laughs> responsable bi la lislaam jox waaw mooy ne soxna si boo ko yoree bu doon doonoon milliardaire yow sax mënoo amee ay junni léppam yow la war maanaam xorom sax bu ko doolee. waaw da koo neex koo neex. léegi nag yow ah sa xol sedd na woo seddutoo li war yow danga ko war a def. Ah. xoolal guddi gépp na la soxna si fanaan mere. su xëyee. Hmm. soxla téeméer. Hmm. may ko mil. waaw hmm? ah, loolu Sëñ Fall ah. maanaam bu la fanaanee mere gett la. téeméer jox ko la. est-ce que daa am ñoo xam ne ni la ñuy jubbantee nit. est-ce que dëgg la dégg naa la. daa am ni ñuy jubbantee nit. waaw waaw. fu nekk nii koo xam ne ah, peut-être téeméer bi soxlawu ko. Mhm. kooku lii la la ci ji daa xam. waaw nga dëgg dañ cee gaaw de xam. yoruma ko. nga yëkkati 1000 francs jox ko. c'est vrai nga rus. est-ce bon. Euh, dinaa dégg ah, Oustaz Alioune Sall naan ak ñoo bëgg bee yu bees. communication la waaw. <laughs> Oustaz Alioune Sall. communication la gis nga gis góor. Euh, euh, damay wax ne garab bu la sutul du la mën a may ker. Mhm. loolu loolu am na beneen xam naa mel ni mu way xajut fii il faut ma ñëwaat. da ngay ñëwaat waaw léegi nag jotaay bi du jeex de jotaay yi. ba ba may fa ma doon waxee naan. Mhm. jigéen man galas dinaa leen kaasal ci seeni góor am na ci loolu daa baaxul xasida googa mhm. tubaarkàlla moom waaye yow nag yow it lu la góor ñi def ah? booy kaasal jigéen ñi ci li góor ñi def xanaa di nga indi geneen xaside waaw booy kaasalee góor ñi am na am na am na ah, ah waaw kay am na xaside ni ah. jàmmati góor ñi hmm. moo ci am jàmmati góor ñi <laughs> jàmmati góor ñi <laughs> mu ngi noonu kon sëñ Fall dugal ñu ci sëy maanaam dénkaane sëy ku hmm. góor ak ku jigéen ku ci ne mën nga jot sa wàll hmm. fii ñuy wax yéen am na ay couple yoo xam ne ñu ngi toog di seetaan kon sëñ Fall wax na ku góor ki ni war a yore wax ku jigéen ki tamit ni mu war a sëyee mm-hmm.